di sant sëñ Tuubaa di sant Cheikh Ibrahima Fadi mi ñu ci boole di sant itam suñu wasila sëñ Maam Thierno. mais xanaa moo leen toogal fii ci barabam bii ci Rabaa ci Darou Mouhty ndax moo war a jotaay bii duñ ci daraay sant yàlla nag ci anam ndax fekkee gi rek sant yàlla la. fekkee gi itam ci nga xam ne ñun am amuñu lu sëñ bi te sëñ Tuubaa maanaam lii tax li tax ma nag bisu mbégte mooy comme noonu ko daane fi nga daane loolu lañ koy waxee ndax sëñ bi muy dem. xëy na ñi nga xam ne amuñu woon basira gis xol xamu jartoon nañ ne yëf yi mën naa am ay jafe-jafe. Mm-hmm. waaye moom fekk na moom waajal na ginnaawam bu baax a baax. maam Thierno mii li tax mu ko fa daa fekk sëñ moom nag ci moo ko ci def. Mm-hmm. maam Thierno moom léppam sëñ bi la ndax sëñ beeko ko daal baa ba na ko bàyyil. Mm-hmm. lu nekk moom sëñ bee ko def ci moom sëñ bee ko formé dafa ko léppam. kon wóolu woon na ne ba muy def ne kii muy jox comme wóolu la xam xam ne li mu def ci moom incha allah coobal suñu borom rek ko ne waaye nit mënu ko doomu aadama mënu koo dindi mbindeef mënu koo dindi moo tax mu wóoroon a jël lépp teg ci loxo xamoon na ne itam natt na ko ci fànn yëpp ci jom jeeg fulla jeeg fit jeeg fayda jeeg ak ngor gi mm-hmm. ba nga xam ne wóor na ko dina matale yëpp li tax ma wax yooyu itam ndax boobu dafa aajo yooyu yëpp ndax boobu jamono ji neexul mm-hmm. neex koo xam ne la nga bëgg lépp da nga ko mën kon faaw nga am ngor pour mën a muñ faaw nga am fit te mën a jànkuwante tubaab ndax bu fekkee nit ki nga woote ginnaaw moom lañ départ dañ ko départ dañ koy xeex mm-hmm. yow nga bëgg a toog téye ko njabootam fas yéene lam dawal nga téye ko daal doo fa jógee loolu fitu koy may jamono bi moo tax moom fitu mën a toog ba mën a dëkk lool nag mën a dëkk fi dëkk nga xam ne dañu yàqeet yeeg ñëpp ak mi nga xam ne sax ci réew mi lañ dëkkoon du ñuy noon sax waaye nag xaj na booba jort na ne tubaab moom dara taxu ko ndax booba yaa jamono toll foofu ñu jàpp ne tubaab dara taxu ko japp ne ko jànkoonteeg moom xaj na doo ci mucc mm-hmm. waaye moom maanaam sëñ bee ko formé moom def lépp ci moom ba muy dem ba mu ko sëñ bi yebale ndar rek la mu tontonte gouverneur rek waroon naa tax ñu xam ne kii mën naa sëñ bi loolu bi toog ko place ko sëñ bi yónnee lettre ba mu eggee gouverneur général boobu pour gis ko koo gis tamit la waaye moom ko na ko boobu nag ko waroon nattoo ko seet rek ndax yéen sëñ loolu loolu ci xeeti test la sëñ bi doon def boobu mm. test waaye moom test xam ne kii mën na lépp daara bu ñëw fekk na sëñ waaj ba noppi ndax bu fekkee ñu ko faw nag moom boo joxee da nga koy jox waaye gouverneur moom du joxanteeg ab indi seen loxo da koy du ma ne leen man nag ki may indi moom dama waxoon li war dana man kon nag bu mu fante ñëw jël ko ci loxoom na ko bàyyi ñu wax ko ñu wax ko gouverneur ne wax na dëgg daal na ñëw jël ko ci loxoom foofu rek tubaab bi tàmbaloo na faiblesse ndax loolu nungulul kenn ki ngay préparé bu songanteeg moom nga nungul ko ko seen faiblesse am la feeñ foofu waaw ah, dama laan feeñ ba ko ba bi dikkee loo tax sëñ bi xam ne kii la mu ko doon tese mën na ko mal sëñ wóolu ko bàyyi ko fi jox ko lépp ba mu ko joxee itam lam doon ci dara lu fi ba sëñ bi dikkee na ko sëñ bëgg woon lu ci lépp dafa yokk waaye dara ko ci njaboot gi dara sakku mu sàmm njaboot gi sàmm taalibe yi sàmm lépp sàmm yoon wi boole ko ngor ak fulla ak fayda ak lislaam ju mat sëkk yoo xam ne kenn mënu ko jam ci benn wet nag mhm. ak joxe cër bu mat sëkk moo tax nag ba mu dikkee tey bés bi tase nag ne su sàmbaan moom sëñ Fall li nga xam borom gis-gis la tamit waxoon na ne màggal bis bi ndax bis bi dana sant yàlla ndax loolu dana sant yàlla ñu murid yëpp ñu murid yëpp ko bokk julli yëpp ko bokk sax ndax sëñ Tuubaa tey su fekkoon ne lu doon wuti échec woon nag ñëpp murid yëpp échec kon réew mi dina kon musiba am loolu kon bu euh, du ñu jik dina dina métti loolu ci réew mi waaye bu mu demee yàlla dogal mu dem lañ tubaab yi ko la mu bëggoon ma bokk a a euh, la ko moom la yàlla jagleel moom la yàlla jagleel loolu waaye ñëpp ko bokk julli yëpp ko bokk ne mbégum lislaam la mbégum julli yëpp la mbégum taalibe yëpp la moo taxoon nag tey ñun ñëpp bu jàk la sëñ bi moom borom daaru lépp sëñ Tuubaa loolu nekk woon sëñ Tuubaa bu yor gis nga sëñ bi tam moom bisam bu mag bi ñu woote bis sant la ñu tam bis bi sant dong la loolu la moo tax ñu sant yàlla bu baax a baax ci fekkee ñu fekkeeloo ak yëngu gi ñu ci yëngu ngir ak jëm sëñ bi waaw loolu lépp nag comme ni wax ñun ñun ñun fi ñu toog dañ fi toog jotaay boo xam ne jotaayu taalibe lañ fi toog suñu maam Thierno mi nga xam wasila moo ñu yar ci loolu tàggal ñu si taalibe loolu hmm. taalibe rek moom mooy saf ci lañ fas yéene dund ci lañ fas yéene incha faatu yi dama sob yàlla di ko ñaanal moom ma xam mooy suñu ko fanu gudd ànd ko wér ñaanal moom liggéeyal sëñ Bamba ngërëm moom barke sëñ Tuubaa